ليس مني الله عند الجاول إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل سندري بأهل بذين الأسود الكدري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي طالبي بكي جلدي يب cheikh Mouhamadul Mountakha mi ngi leen di nuyu fu ngeen mën a ne xam ngeen ne bis bu tedd bu màgg boobu nga xam ne mooy ci fan ak juróom-ñett yi nga xam ne ci dañ jëm bis boobu nag xam ngeen ne saa soo ne ni ñu ngi koy jub di ko waajal ñaari sëriñ bi dana am kàddu yoo xam ne da koy jëmale ci mboolem taalib yi yëpp dema ko ci mboolem juddit yëpp soññi fàttali sant ñetti yëf yooyu mooy li nga xam ne saa su ne moom lay jëmale ci bokk taalib yi noo ngi ñaan bokk yëpp ñu déglu taataan te xam ne lépp lu bàyyi ko ci moom rek jëm si ci nun loolu mi ngi mel ni taw bii di door a noppi ci nun noonu la la demee la noonu la demee ci ñëpp kon noo ngi koy déglu. moom mi ngi gën a nuyu mbooloo mi yëpp. ñi ngi fas yéene teewlu ni ko Moustapha Diatra waxe fan yi ñu jublu ba ci fukki fan yi ak juróom-ñett nañ fas yéene teewlu bu baax fas yéene jëfe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 jàng ñetti kaamil boo ko munut benn ba ci looman mën nga gën nga jublu ci gën a yeesal sa jaayante sëriñ bi gën a fas yéene def ndigalam ci santale ko borom loolu moo ci jiitu fan yii yëpp nag itam nu gën cee góorgóorlu def suñu itte yëpp muy suñu borom suñu yënguti yëpp itam nu jëme ko rek ci jàng alquran jàng xasaayit feek bis ba sunu yitte yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ku man nanga nga def sa yitte yëpp na nga ci jiital jàng alxuraan jàng xasida ñi nga xam ne dañuy kuréel nañ ca nekk seen kem kattan ñiy durus nañ ca nekk seen kem kattan lépp lépp lépp lu ñu jubloo ko sant sëriñ santale ko sëriñ bi ak sant ak sant jëmmi sëriñ bi ci boppam sant ko jëmmi mu jooju moom sëriñ bi loolu mooy li ci gën a am solo loolu li ci dolli ko nag ñun ñëpp gën a jëfandikoo gën a jëfandikoo teggiini taalibe ci suñ bopp mboolem gan ñi fi ñëw ak mboolem gan ñi fi ñëw na ñun ñëpp nañ jëfandikoo teggiini taalibe suñ digganteek suñu bopp suñ digganteek mboolem gan ñi fi ñëw loolu loolu lu ci munta ñàkk la ndax teggin mooy li gën lépp loolu alhamdulilahi rabbil alamin ku ne xam na ko ci nituk sëriñ bi moom teggin hmm. kon nanu maase nun ñëpp di ko def jëfandikoo ci suñu diggante di ko teeroo it gan ñi la dolli ko ci lool nag nañ ko doon waxee ci gannaaw rek or mooy dëkk bi or dëkk bi na ko ñëpp na ko ñëpp bàyyi xel te xam ne dara jiituwu ko or dëkk bi mooy ormal sëriñ bi ku ormaalu dëkk bi ormaalu sëriñ bi kon nag ormay dëkk bi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ci waxtu mu mën a doon rawatina fan yii sàmm war may dëkk bi dara jiituwu ca ndaw ñi ndax ñoom ñooy yaakaar yi ëllëg yi lu ñu mën a yëngutu yëngutu ci sëriñ bi moo ko gën ci ñoom kon ñoom ñoo war a def seen bopp sax kon ñoom ñoo war a def seen bopp sax ñoom ñoo war a ndaw yi ñoo war a sàmm dëkk bi lu fi sëñ bi bëggut lu ñu fi gis war nañ caa def seen yitte te boole kook yar ak teggin ñoom ndaw ñi ñoo war a sàmm dëkk bi ci lépp mën na maa yem foofu Cheikh Bass eggale li ci des li mat a wax lépp jox nañ ko ndigal mu wax ko nañ góor gi góorgóorlu ci cant gi rek góorgóorlu ci sàmm orma ji loolu rek la alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala alhaadi amin sayidina wa muhammadin al makin alihi wa zawi ridwaani wa ci ndigalul sëriñ bi ci kàddu yu yi nga xam ne yëkkati na ko léegi muy kàddu yoo xam ne matale na sëkk te jot sëkk kon liñ ci dolliwaat tuuti mooy rek bis bi ni ko sëriñ bi waxee léegi eh, altine fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar moom lay doon incha allah mooy bis bi nga xam ni ci la ñu war a amal màggal gi kon ak sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal ñëpp ginnaaw bu mu ko yëgalee ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi di njëbooru sëriñ Tuubaa gépp ak mbooleem ñi nga xam ne seen maam ya sëriñ Tuubaa moo leen defaroon bayu ci kenn. ba wàcc ci taalib yi nga xam ne ñooy seenu njaboot nga xam ne bis bii ñoo koy def ngir jëfe ndigalu Sëriñ Tuubaa ginnaaw bu loolu jàll it mi ngi koy yëgal di fàttali ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal lislaam ji yëpp kon sëriñ bi nee na mi ngi leen ko fàttali fas ko yéene ànd ni ngi ko daa ànd ak di fàttali tuuti rek na ci bis bii nga xam ne mooy bisu màggal gi nga xam ne mooy bis bi nga xam ne amuñu lu dul moom ndax mooy bis bi nga xam ne bu Serigne Touba demutoon ci géej gi kon tey kenn du gore kenn du moom sa bopp kon bis bii moo ñu tax a jot suñu bopp kon Serigne bi ne mi ngi koy fàttali ñëpp di xam leen nit yàlla yëpp bis bi nga xam ne ci la leen euh, suñ borom tegum nattu wala ca sabab sa taxaw mu teg leen ko li ci ëpp ci koy jeexal boo xoolee yonent yàlla Yuusuf am na tom mi ngi tàmbaloon ci gént inni raaytu ahada ashara kawkaban wa samsa wal xamara raaytuhum li saajidin waaye ba natu bay jeexit mi ngi jeex ci gént ci firi gént suñ borom doo ko xamal xam-xamu firi gént wa qaala maliku iitooni bihi falammaa jaahu rasul qaala rja ila rabbika fasalhu ma baalu niswati lati qataada aydiyahunna ba ci mujj ga mu wax ne qaala ij'alni ala xasaa'ini al-ardi inni xafisun alim kon foofu la nattu jeexee boo xe boo xoolee yonent yàlla Moussa bi mu gënee àdduna wa awxayna ila ummi Moussa an ardihi fa iza xifti alayhi fa alqihi fi ljam wala taxaafi wala taxsani waaye ba nattu bi tam da ko wax ci géej gi waaye bi nattu bi jeexit mooy bi nga xam ne Firawna sonal na ko fa atbaahum firawnu wa junudu baxyan wa adwan xata isa adrakahu alxaraqu qaala amantu annahu laa ilaha illa si amana bihi banu israil rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam itam nattu bi mi nga tàmbale woon ca Makka ca Kaaba ga muy jule yéefar yi di ko fekk di ko fitnaal waaye bi muy jeexee ci fatu Makka foofa la taxaw di wax ak ñëpp di ko dégg ku faaru Makka yëpp ñëw sukk jëbali ci moom Sëriñ Tuubaa yi yàlla def bis bii ci la nattu bi tàmbali woon mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci mbakki baari mu dem ngir liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ay at yu bëree bëri nag mu juge fa ba dem gànnaar ba jëm ba dem ci yéen ba ñëw njaareen ba am fa lu mat juróom-ñaari at ba 1918 ndax nattu bi daa saa su waxtu bi accès lu ko ma sante ci nattu rek bu del siwaatee ñu teg ko mbooleem lu ñu toll ci nattu ba ci at mujj fa nag sëriñ bi du ko fuglu ak di ko waajal suñ borom xamal ko ne nattu yi jeex na ak pay ci des ba àdduna di tukki itam nan nattu yi daa demee rek pay gi ne lay saa su agsiwaatee luñ la masaan jox ci ci ci ci ci xéewal rek dañ la dañ lu ko ëpp kon bis boobee nag ci la Serigne Touba digle ci 1918 ci la xëy xam ne ne suñ borom xamal ko ne nattu bi jeex na bu agsiwaatee na ko ci ñëpp sant la yàlla. li tàmbalee ci ginaar ba ci gileem kon loolu mooy bis bii nga xam ne ci lañ tàbbi ba yàlla def mu agsi mooy biss boo xam ne nag lépp luñ am rek ci ko amee kon sëriñ bi ne mi ngi ci soññ bokki taalibe bi yëpp ñu gën koo fonk te xam ne boo xoolee ci mbindi sëriñ bi fu bari sëriñ bi wax na ko fa fustu la daa galwa wa inda ba afali ma bihi uniru kulla ma afali ci la suñu borom leerale mboolem palaane palaanet ci àdduna waxaat na it ne alaana lil quluba quluba wal daana man qaada lii fii baladil buldaana kon wane na ne màggal gi adduna sépp danañ ko ci aussi kon loola rek mooy li agsi nii kon sëriñ bi ne ngi ci soñ ñëpp ngir xam ne màggal gi moom borom defaral na ko boppam bërëb ju fajoo lu tàbbi ci biir ñaan ko nangu la na ko bëggee saa su agsee waxoon na ne àjjana amuti bis waaye buñ demee ba ëllëg képp koo xam daa nga sonn ci bis bii boo agsiwaatee da ngay xéwal guddal ko ci yow kon a lool lu ci waay def rek sabab mu koy defal kon nag ñu ngi ñaanalaat bu baax sëriñ bi mu yàgg fi lool te ànd ak ba yéene ji nga xam ne am na ko ci liggéey sëriñ Tuubaa te itam jëpp weesu liggéey sëriñ Tuubaa loo ko mën a ñaan loolu ngërëmu sëriñ loo dégg mu ne la amiin ngërëmu sëriñ Tuubaa rek ko kon nag ñu ngi koy ñaanal ngërëmu sëriñ Tuubaa loolu yi nga xam ne kenn nattablu ne am na ko yàlla na yàgg lool ci barke sëriñ Tuubaa ndax lu mu fi a mu nekk sagu yoonu murit lu mu fi gën a yàgg mu nekk sagu lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yasmini llahu inda jawali id naadaytuhu bi yaa wali nafa li gayri llahu qablu sindari bi ahli badini l usudi kadari